إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki groupe Sakko خمسة دينا Diine ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di len ñaanal jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ñu jamm di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu ñun ak yeen saxal ñi ci yoonu njub eh, mbokk yi ni ngeen ko déggee woon ci bande annonce bi te mooy waat ak seen programme bu mag boobu ñu daan def tuddee woon ko wa amma bi nehmati rabbika fa hadis moom de li muy firi ci wolof mooy borom bi wa taala nee bokk na ci sant ko mooy mu jox la xiwal nga di waxtaane xiwal googu ni ñu ko daan waxee nag xiwalug jullit ñun dee gisuñu ci lu gu gën a jaam bi yàlla dimbale ko ba li muy jaamoo borom bi tabaraka wa taala mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaamoo boromam tabaraka wa taala waaye bu xoolee pas-pasam it du wuuteeg pas-pasu yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay sahabaam mu mana tek mbiram lepp ci alquran ak sunna yam ci ta doylo ko lolou de moy xiwalu julit bi gëna reey motax ci mbokk yi di faral di wax naan alhamdulillah ala nihmati sunna ñu ngi sant yalla ci xiwal gi nga xamne ne nañu ko bañu mana top sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wala bo bañe mana bañu mana jema gor gor lu ci sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon ni ngeen ko déggee nonu rek nonu la tey ñu ngi fi am sunu mbokk eh, ñi ko wax Cheikh Mbacke Diop Cheikh Mbacke Diop nekk fële ca Italie eh, ca Allemagne incha allah moom la ñu war a jàkkaarloo ci ligne bi muy kenn koo xam ne comme ni ngeen ko xamee rek nag mooy ah ni mu dalee ci Sénégal yu bare bare bari wala mun nga wax ne li gën a bari lépp ilaa man rahima rabbuk eh, ay ndaw yoo xam ne juddu nañ ci biir tasawuf màgg nañu ci waaye dund nañu ko bu dee ba waa Bawol la moo xam lañu lay tax ñu ne kii dee ci yoon yi la bokk mooy dem na jébbalu uti na sëriñ waaye naka noonu it mbokk yu bari it bu dee ci wàllu kajoor ga la it mooy la tax ñu ne kii dee ab taalibe tijaan la mooy jëli na wér dëwër naka noonu it loolu it gis yàgg ngeen a gis ñu dalal koo xam ne it loolu jaar na ci Eh, ki ñu am tey muy Cheikh mbacke Diop mom la ñuy dalal ni ñu koy faral di waxe nak programme bi xaste taxut ko jog programme bi togn taxut ko jog programme bi liko ko jog moy ye mbokk yi ak itam leral ay mbir yo xamanteni galankor la ay subuhat la yu bare bare yo xamanteni bari na ku tank ci mbir ku tank ci mbir ya ba legi subuhaat yooyu moo leerul ci yow rek waaye bu looleen ci yow nga sànni ko teg fële euh, bokk na ci subuhaat yooyu nag ci yoonu kajoor wi nga xam ne ñun moom la ñu xam te muy yoonu tiijaan wi mooy ñu baree baree bari dañoo teel a sol ci seen nopp yi ne yoon yi ku ko bàyyi da ngay alako te loolu moom du dëgg du benn dëgg yoon wi ku ko bàyyi da ngay alako loolu du dëgg euh, bu ko defee loolu tax na ndaw yu baree baree bari japp nañu seeni wirda dem nañ ñaani ndigal ci astaghfirullah ak salatu ala nabi la ilaha illallah ñaan ndigal gañu ci ñaan ndigal loolu moo leen fa bàyyi ndax ne waxoon nañ leen ne boo ko xasee jàpp dootoo ko bàyyi ba kera ngay dee te boo ko bàyyee da ngay alaku loolu nag li ñu leen waxoon léegi lañ leen di waxaat mooy du dëgg ndax ñi ko bàyyi kat dañuy gën a sant yàlla waaye kenn alakuut ci eh, waaye li tax nga mën koo bàyyi mooy nga dem ba xam ndekete yoo lii ñu lay këpp-këppal nga xam ne boo ci xasee dugg ab jaam ngay doon daanaka jaamu benn waay ngay doon rek loolo de lala cay génnee mooy nga dem ba xam ne ndeke ñoom kat liñ la naxee mooy nee nañ lii du dara lu mooy astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha la bis boo demee ba xam ne lii yow jullit bi keroog bi nga juddoo nekk jullit rek nga ci am ndigalu wax ko kon jarul ñaani kii wir jarul ñaani ndigal ci kenn kon nag waxtu wu loola leeree ci yow ndigal loola nga jaamoon ñaani ci doomu aadama yi da nga koy dal di da leen di delloo ndigal loola tey yow dem jëli ndigal la ci cosaan la te muy bépp jullit am na sañ-sañu waxuma am am na sañ-sañu waaye waru gar la ci moom muy tudd yàlla guddeeg bëccëg waru gar la ci moomit muy jéggalu borom bi tabaraka wa taala ba bëccëg waaye waru gar la ci moom it muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa lii ma ne ndigal amul ci amul kenn ku ci kuñ ko jox naan la yaa ciy joxe ndigal wala kii moo ciy joxe ndigal wala ku ko jëlew ci lii wéerul wala nangam nangam yooyu ay mbir la yoo xam ne dañu ko doon leeral bu dee ci yoonu bawal bi it moom itam damay wax ne dara gënul doyadi jaam bi yàlla bindu yàlla mi koy bind bi mu koy bind sax tàgguwul ay woy juram mu nekk fa mu nekk ba génn fa mu génnee ay woy juram di daw ba bëccëg di ko sonn di sonn pour mu màgg pour mu dund ci gannaaw bu ci yàlla bu ko yàlla nammee di xotti yére di def la ca war yëpp ci seen doom doom jooju moo dem ba am fukki at ak juróom benn juróom ñaar fa muy dëgëree wala sax lu ko jiitu papa ji xañ na nax nañ ko jàdd mu jàpp ca loxo ba ànd ak moom dem ba ci benn waay joo xamante ni jëriñul la dara dara dara dara bal yaa ko mën a yaa koy jëriñ lépp ci àdduna fii lépp luy njëriñ ci yow lay jógee jëm ci moom nga jël sa loxo doom ne ko wax ko ne ko jébbal naa la sam bopp àdduna ak àllaaxira damay wax ne papa joojee di wax dëgg yàlla nax nañ ko nax gu métte métte métte métti waaye nag léegi-léegi am doom joo xam ne papaam defalul ko loola bal moom moo waaxul boppam dem ba àgg ci benn waay ne ko jegal na jebal na la sam bopp aduna ak alakhirah mané nak ki nga jebal sa bop aduna ak alakhirah waron nga ko laaj de gi boo ma njëkkee fan la fan nga may xaar waye man suma la de fan la lay xaar mbok yi jebal sa bop nit aduna ak alakhirah lolou de saxul ci islam bal luy weddi Islam la motax may faral di wax na yon la wo xamne ñaarel bala nga ci dugg da ngay weddi ba pare te lolou de wax di gal musiba kon ñu ngi guddal waaye dañu doon leeral rek émission bi li ko tax a jóg mooy leeral yenn mbir ak yeete ak itam wan wan nit ñi it ne leen ala eh, nit ñi ñu ngi ànd am na benn benn yuy dem ba mu yàgg nag yàlla delloo leen seen xel ñu xam ne li ñu nekkoon lu gën a bari de ay biddaa xuraafa rek la ñu dem jëli yoon wi nga xam ne mooy yoon wéer te mooy yoonu alquran ak sunna bi fahmi salaful umma kon شيخ ني نغي لاي دالال جام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أحوالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبحث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي أحمد ñu سيار lay siyaar ساكو خمسة ديني sàkko xam برب diine yi di comme ñu ubbee comme loolu nga ubbee rek nga xam ne bokk na ci kàddu yonente yàlla bi doon ubbee donte ñu ko waaye ñu jéem rek ayul incha allahu eh, di dégg ñu ngi lay déglu incha allah ci la ngay rotal ci laaj waaye di yëgle tamitam comme ni nga ko waxee muy wa amma bi nixmati rabbika fa xadis ak ni nga ko waxee rek muy xéwal bi bu la ko borom bi defalee war nga waxtaane xéwal yooyu waaye loolu mooy sabab bi incha allahu ñu teew fi te it mooy jubluwaay itam itam comme émission bi ni nga ko waxee waaye du tas du wane sa bopp waaye lu si jóge loo xam si ni it nga euh, nuru na luy xaw a feeñ ci tuuti rek luy xam la yow yaay kan rek xamal ni euh, taske suñu bopp duñ si jublu du nekkul suñu jubluwaay ndax borom bi moom falaa tuzakkuu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa mu ngi noonu incha allah kon nag xam nga kii laajin moom. Euh, léeg-léeg du laaj ayib ya nga ya nga xamante ne ay njuumte la ñu yu ñu borom bi nattoo waaye moom du ko laaj ndax ker sam du ko may waaye ki nga xam day tontool euh, la muy tontu wax dëgg yàlla dina góorgóorlu ba nabbi ay ayibam waaye euh, wala du wax daal ay natt yoo xam ne ay ñaawteef yu ko borom bi nattoo la mu juum ko amaana du ko wax waaye luñ ci déggee loo xam ne dafa nuru taskiya tamitam loolu taxu ñëw jóg incha allah barakallah fiikum sax bi ñu ngi lay déglu salaamaaleykum wa rahmatulah tur bi nag comme ni nga ko waxee. soxba ki Jóob la bu Ibrahima incha allahu salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu xayaakallah wa barakallahu fiika wa jasaakallahu xeyran ci fàttali boobu sax nga fàttali waala ñi te moo dina ñëw ñi fi mukk pour sellal jëmm wala sellal sunu bopp ndax kat allahu ahlamu bi man ittaqa e, jasaakallahu xeyran wa barakallahu fiika sunu laaj bu njëkk de mooy Seex Mbàkke kan mooy Seex Mbàkke maanaa fan mooy cosaanam incha allah barakallah. asalaamaaleykum wa rahmatulah Seex Ahmed alhamdulilah waa sëñ Mbacke Diop nag euh, mu ngi juddoo dëkk Sénégal ci bu ñuy wax Kër Mbir Ndaw foofu la cosaano Kër Mbir Ndaw mu ngi nekk ci région Thiès la tamitam xam naa département bu Tivaouane arrondissement Pambal euh, commune bu Notto Gouye Diama incha allah foofu laa fekk baax. incha allah foofu lañ dëkke waa barakallahu fiikum barakallahu fiika wa jasakallahu xayran gannaaw bu nu xamee seex fan la cosaanoo muy kër mbir ndaw dëkku seex maxtaar géej xafisollaa yal na yàlla sàmm ko dafa mel ni foofu la léegi seex moom ci njàng yi ñuy jàng ci Sénégal ban façon njàng la ci def moo xam français bi la wala arabe bi ban la ci seex jàng waa salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu Ahmed waa alhamdulilah waa foofu la waa eh, Muxtaar suñu rakka la waa suñu dëkkandoo la tam itam alhamdulilah amiin yàlla yàlla nangu ñaan yi nga ko ñaanal incha allah bi ci desit foofu lañ jàng waa ci daara yi lañ nekkoon mosuñu dem ci école yi foofu lañ doon jàngi di ñibbi nekk ak suñuy jur xam naa nekk ci tool yi daal eh, bàyyi ak wala nekk ci jur gi ak eh, boole ko ak daara ji fànn googu ci lañ nekkoon incha allah. ba am nañu fa jógee tamitam ci loolu lañ nekkoon waaye bañ fa jógee nekkatuñu woon ci daara ji taxul mu jàng mu taxul nekkul njàng mu géeju daal mu ngi noon waa barakallahu fiikum ñu ngi lay déglu ci beneen laaj barakallahu fiika wa jasakallahu xayran xam naa programme bi dañu ko bëgg di téye mu yàgg moo tax dañu koy faral di def laaj yu xaw a simple te xaw a kii rek nit ñi mun cee jëriñoo incha allah eh, gannaaw boo xamante ni Cheikh jàng na ci daara ji di ñibbi këram ndax Cheikh jógee na fa dem ci biir Sénégal jàng métier wala Cheikh am na beneen métier boo xamante ni am na ko ci biir dundam wala. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu Cheikh Ahmad waaw bi ñu jógee foofu nag tamitam wax dëgg yàlla Sénégal moom daanaka dox bi taxu ko woon a sori lool ndax defe naa mosuñoo génn foofu daal eh, mosuñoo génn foofu ci jur yi eh, maanaam génn ci ñoom daal ne dem nekk ci àll bi def fa semaine daal defe naa mosumaa gaar daal bi may nekk Sénégal incha allah. wala toog semaine boo xam ne gisoo say waajur daal euh, xanaa bu fekkee passé na baay bi daal wala ñu ngi Sénégal ba mu demee màkk daal defe naa nga xam ne jamono jooju daal ci lañ mos a toog lu mat weer te gisuñu ko daal bu dul loolu moom mosuñu dem fenn daal. Euh, bu fekkee métier la tamitam daanaka métier moom euh, barale wuñ ko daal ndax jànguñu woon métier waaye bi ñu ñëwee ci àll bi ci fabrique lañ nekkoon di liggéey foofu ba bi ñu fa jógee fii ñu nekk tamitam incha allah ñu ngi kon di liggéey ak tubaab yi suñu métier moom. ci liggéey restaurant ci lañ nekk incha allah yooyu daal moom lañ jot a daal incha allah barakallahu fiikum barakallahu fiika wa jasakallahu xeyran waaw Cheikh xam naa tur bi rek de moom ku ko dégg rek am dal di day dal di am lum la jox eh, gannaaw bu ñu xamee Cheikh fan la dëkk ban façon njàng la jàng eh, bu waay itam daf ñuy yóbbu ci suñu ñetteelu laaj wala ñeenteelu laaj mooy Cheikh moom ci yoon yi nekk Sénégal ban la ci nekkoon bu fekkee ne cheikh mos na jaar ci yoon yooyu ci ban la ci nekkoon barakallahu fiika wa jazakallahu khairan yoon yi nag buñ ko waxee comme programme la dafa war a leer mooy diggante murit tijaan qadir layen nangam nangam yooyu yëpp nga xam ne ay yoon la yoo xam dafa ñëw rek pour tàqale xeet yi comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee woon bim ñuy aaye ñu ñu bañ a topp waxoon na lu tax noonu na buñ ko toppee dañuy tàqali ko loolu nag mooy li feeñ bëgg ko mooy li am bañ ko mooy li am moo di ne yoon yi moom ñëwut fi lu mooy tàqale xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu fekkoon ne ñun ñëpp kat fenn la ñuy jëlee diine ci nangoo jël diine ji ci alquran sunna ni ko noon tàqali yu bari yi yëpp du fi am waaye balaa boobu rek ñu laaj cheikh incha allah yoon yii nekk Sénégal ndax mos nga cee bokk ci benn yow bu fekkee mos ngaa bokk ci benn ci ban nga ci bokkoon waaleykum rahmatulah sa ahmed amin wa yaakum waa bu fekkee comme ni nga ko waxee yoon yooyu nga xam ne mënees na ko awe ay ñàlla ndax moom la ndax annahu sa siraati mustaqiman fa tabixu wala tatabixu subula mu ngi noonu eh, yoon yooyu comme ni nga ko waxee mooy tàqali ko tàqali ko lay doon rek ndax boo demee ci yoon yooyu moom bari nañ waaye yoon boo ci demaat ay bànqaas lay doon tamitam nga xam ne ay yeneen car lay nekkaat waa kër sëriñ diw waa kër sëriñ diw te même yoon bi lay doon même yoon boobu bu dundee tamitam bu buñ demee as ndiirit day amaat ay bànqaas kon woowu yoon moom moom mënoo ko utal ab lim daal ndax boo ko nattee ren nit bu déwénee mu gën a yokku incha allah comme ni nga ko waxee daal boo déggee tur bi daf lay jox AC Mouride ala kulli xaal ci Mouride gi lañ nekkoon ci lañ doon góorgóorlu eh, ci lañ fekk suñuy wayjur mu nekk ci incha allah eh, muy Mouride gi yoonu Bawal yi di borom bi nag moo ñu defal ndimbal waaye di ñaanal suñu mbokk ya ca des tamitam borom bi wan leen wan loo leen ginnaaw yoon yooyu nga xam ni bagage la boo xam ni si nii kii tukki yor bagage boo xam ne moom di la ko laaj aéroport fa nga jëmit du fa amal njariñ yooyu bagage moom ku mën a tàqalikoog moom ci teel gi rek mooy la gën daal barakallahu fiikum amin yaa rabbi seex bi jasakallahu xayran wa barakallahu fiik kon de gannaaw bu ñu xamee ne yow yaa ngi yoon ci yoonu bawal wi ndax mun nañu laaj Cheikh lii ñuy wooye jébbalu ndax Cheikh jaar na ci walla déet jébbalu nag bu ñu ko waxee mooy dem ci nit ne ko jébbal naa la sam bopp aduna ak àllaaxira ndax Cheikh jaar na ci ndax kat moom daanaka loolu mooy li tax ñu mën a wax ne kii kat ab murit la woon walla boog ab mu nu ko mën ak nu ko mën a tuddee waaw kay ndax seex moom jaar na ci ak njébbalu wala déet bu fekkee ne seex jaar na ci ndax bi mu koy def moo ko fàtt moo ko sabablu boppam wala koom nag dafa fekk rek inna wajadna abana bu ko defee eh, rek bàyyi dal di jàpp ci loxo yi yóbbu ci sëriñ ba ne ko naa wax ko ne ko jébbal naa sa bopp sama bopp àdduna ak àllaaxira bëggoon nañu foofu daal seex leeral ñi ndax moom jaar na ci njébbalu bu ko defee itam ndax moom dañ ko ci yóbboon mu def ko wala moo ko defal yoon boppam waa si Ahmed macha allah barakallahu fiikum waaw bu fekkee côté njëbbal gi moom euh, jébbalu woon nañ waaye ñun borom bi def ñoo teele a mooñaale ak fitra daal ci góorgóor donte njuumte yi doon na am léeg-léeg ci ci xabaabal gi ci doxalin wi waaye fitra bi maanaam léeg-léeg di bañ yenn mbir yi loolu borom bi daf ñu ko mooñaale woon daal ba doon nañ ci góorgóor donte mbir yi comme ni mu leere ci ñun léegi leerawuloon noonu tamitam loolu ndimbal borom bi la bu fekkee côté jébbalu bi defe naa yàgg nañ ci daal ànd teg waajur ndax lu gën a bari léeg-léeg kii sa waajur ñëw jébbalu yow kooku rek ngay jébbalu bi ñuy jébbalu tamitam ci moom lañ jébbalu waaye suñu waajur yi dafa moom boo xaw na digg doomu na daal par rapport ak waajur yi baree bari digg doomu na moo tax moom sàkku ko ci ñun waaye ñun ñoo dem ba gis bëgg ko def lu ni mel te defe naa fi ma ko def ak fi ma ci génne matul sax cinq ans bi ma koy def booba war defe naa ma jumb daal lu sori côté 2009 daal côté 2009 daal wala 2010 du ko sori daal defe naa foofu laa jébbaloo waaye bi may jébbalu tamitam li tax man la fetrab borom bi dimbale woon nañu ko bokk na ci tamitam sax ak maanaam di wax loo gëmul la taxoon ah, comme ni ñu koy waxee jébbal naa la saa bopp adduna ak àllaaxira muy aslamtu nafsi defewuma ko noonu ndax jébbal naa la saa bopp ba pare di liggéey def ci sama poche loola itam sama xel ak sama góor góorgóor doonu ma ko may daal ma wax ko nit ba pare maanaam eh, di liggéey te du ma la ko jox daal loolu daal. Eh, taxoon dal mom bi dama ñëw rek pour jébbalu moom it mu wax ay muy wax rek comme sëriñ bobu ci sa kanam sama wayjur après mu ni moom mu wax wax ay rafet bu sa wayjur contane rek contane naa waaye dëggal ni sax sa wayjur mom mo confirmer ni ni contane na après légui ci la ki dal wax ay wax ni tofle tofle après ni maral ci sa kanam dal non la ko defee dal mais waxuma xam moom jébbal naa la sàll fa àdduna ak àllaaxira moom barakallahu fiikum aywa barakallahu fiika wa jasakallahu xayran Eh, waaw léegi yow nga naaw boo jébbaloo noonu moom njébbal moomu mu ngi noonu eh, xam naa bu doon lu baax la moom dañu naan yàlla na yàlla nangu waaye lii moom dañu naan yàlla bu ko yàlla <laughs> nangu <laughs> ala kulli haal si eh, Habib jasakallahu xayran wa barakallahu fii ko ci leeral boobu bu ko defee dañuy jàll rek ci wàllu yoon woowu ba léegi nii Eh, léegi gannaaw yow yoon boobu moom moom itam comme ni nga ko waxee léegi bi yàlla borom bi tabaaraka wa taala di waxee ne bu ñu topp subul yi te muy ñal yi ne nga ñàll yooyu de dañoo am sax yeneen i ñàll ci biir ñàll woo gis rek am na yeneen ñàll yu fa jógee loolu de dëgg la yoon boobu nga xam ne mooy yoonu kajo bawal wi te muy yoonu murit moom de dafa am ñaari bànqaas am ñoo xam ne ñoom dañuy danañ nekk ca yoon wa tey julli di woor di def lu baree bari ci li nga xam ne jullit yi ñu ngi koy def am ñoo xam ne ñoom dañoo ñëw ne lépp loo xam ne jullit yaa ngi koy def loola ñoom seen yoon nekku ci mooy du ñu julli du ñu woor du ñu joxe asaka du ñu dem màkk e, ñaar yooyu yow ban nga ci bokkoon. waaw si amat macha allah fiikum waa yoon yooyu tamitam bi nga xam ne duñ julli ñu woor boobu moom euh, bokk ma ci woon nag waa ñàkk julli ñàkk woor ñàkk dem màkk moom. boobu moom Félix moom keefar rek waaw ñàkk julli ñàkk war ñàkk dem màkk ñàkk natt asaka Félix keefar rek waaw boobu moom bokk ma ci woon waaye ñun moom doon nañ julli doon ñu war wax dëgg yàlla te boobu moom musuma ci mu daal musuma ko donte nag bokkoon naa ci ay daayira boo xam ne si nii daan nañ def noonu rek comme yeneen kii eh, tudde ko daayira sikkar yi bokkoon naa ci waaye ñu itam booba itam bokk ci yeneen daayira waaye yooyu biñ ci bokkit moom ña ci nekkoon daanaka xamu ci woon koo xam ne du julli doon dañ dañ daanañ julli daanañu war daal waaw boobu daal bokkuma ci yoon bokkuma woon ci yoon boobu daal daanaka bégg nag waaw ba ca seen kii di bëgg sax moom daanaka maate lu bare bare bare man ak sama mbokk ma moom it daanaka béggee lool xam naa sama mbokk ma dañ ko xam mu ngi ci groupe moom it daana béggee góor googu noonu daal lu bare bari kay bari ko waate sax kay loolu borom bi daanañu ko nattoo waaw ñu ngi ci jéggalu borom bi ndax bàkkaar moom natt ko tamit tam njuum bokk na ci njuum tey barakallahu fiikum baarakallahu fiika wa jasakallahu xayran ah moo gën a wóor de xam naa ne daal moom bokk ci yoon woowu moom bokk ci yoon wi rek problème la boo ci bokkee ci yoon wi nag bokkaat ci xaaj boobu moom kon moom daawul pro daawul problème la lu gars yi wax double problème eh, waaw kay seex bi gannaaw boo bokkee ci yoon woowu dañuy xam ne yoon yi de moom wax dëgg yàlla xam nañ ni muy doxee mooy gannaaw bu ñu jëlee nit ñi séddale leen xaajoo leen bàyyi diw jël jël ñenn bàyyi diw jël ñenn maam diw jël ñenn léegi ñenn ñooñu itam dañ leen di boolewaat ne leen yéen yéenay daayira sàngam yéenay daayira sàngam ndax yow moom mos ngaa bokk ci daayira yooyu bu fekkee mos nga cee bokkit ndax kër mbir nga ko mbokkee woon ci daayira yooyu wala da ngaa gannaaw boo génnee nga bokk ci daayira yooyu incha bëggoon nañoo xam sa participation ci daayira yooyu bu fekkee mos nga cee bokk incha allah. waaw yoon woo nag bokkoon nañ ci daayira waa daayira bi sax bal suñu kër sees ba seesu daayira bi suñu kër la nekkoon waa sama sama ndijaay moom moo ne sama benn ndijaay moom moo nekkoon li ñuy wax jëwriñ ji waa donte ñun fi ñu fete dafa foofu tijaani ñoo fare mais ñun dañu sos ci tali bi suñu kër foofu la mais teewul daay murid ñu ngi féete ca biir a biir biir dëkk ba mais ci suñu kër foofu la seesu daayira bi nekkoon waa foofu la ca lañ bokkoon tamitam nekkoon nañ ci ànd ci ak ñoom ci doxalin ak yëpp daal ci yëpp fan fànn yëpp daal waa biñ ci jógee continuer nañ ànd ci ak ñoom waaye comme ni ma ne waxee bokkaatoon nañ ci beneen daayira boo xam ne bu Sikaram nga nekkoon ci biir dëkk ba boobu bokkoon nañ ci waaye biñ fa jógee tam itam teewul continuer woon nañ nekk ci di nemmiku daayira ba doxin waak ànd ci ak ñoom waaye biñu nekkee Italie itam euh, daayira ba ñu fekkoon itam lañ njëkk def mooy bañ demee nemmiku fan la daayira nekk. bañ demee ñu continuer fa liggéey ba nekk ca suñu programme samedi moom dimanche daayira la woon bi ñu nekk Italie ba léeg-léeg sax bu fekk daanañ jaral daal bañ a liggéey daal pour dem daayira foofu noonu waaye teewul it daayira yi waay bàyyi woon Sénégal dañoo continuer woon nekk ca doxalin wa waaw mu ngi noonu ñett daayira yooyu daal bokkoon nañ ci waaw kala fii daa Italie sax bokkoon naa ci beneen daayira daanaka ñaar daayira woon am na beneen boo xam ni kuréel la woon waaye ma gënoon a concentré moom dañ doon kii chaque samedi dañ doon daje chaque samedi dinañ daje daal dinañ wàcc kaamil jàng ay xasida waaw dinañ jàng xasida it loo xam ne amaana mooy ëpp kaamil bi ci ay ci ay paas daal barakalla fii ko mu ngi noonu. aywa seex bi barakallahu fiika wa waaw ci biir daayira yooyu de kenn léeg-léegi dañu koy waat eh, joxe ay responsabilité damay faral di wax nag. membre simple bi moom moo gën a am chance daw génn léegi yow ci biir daayre yooyu ndax demoon nga ba jël ci benn fonction bu fekkee jëloo nga ci benn fonction yow sa fonction lan la yoon ndax da bokkoon ci yooxukat yi wala da bokkoon ci njiit yi nga xam ne ñooy laaj xaalis yeeg yu mel noonu yow daal sa fonction ci daayira yooyu nga bokkoon lan la woon incha allah barakallahu fik waaw alhamdulilah waaw bu fekkee daayira yi moom yenn fonction yi daanaka yi ci bareet ñun daawuñu ko duñ ko kii daal duñ ko sàkku duñ ko bëgg tamitam waaye fonction bi nga lépp loo xam dañ jàppante doxal tamitam dañuy góorgóorlu ci côté yooyu léeg-léeg bu dee yi bàyyi woon Sénégal daanañ góorgóorlu ci ci di coordonné ñeneen ñi comme niñ koy waxee di leen jokkoo ñoom pour ñu am yu ñuy joxe yu ñuy yi nga xam ne dañ koy itte wala mel ni mbiram baas ak yeneen mel daanañ ci dox léeg-léeg wala sax wala léeg-léeg ñu sol suñuy kii daal suñu sol suñu dàlla war ci kër yi mbokk yi nekk foofu noonu nga xamante si ni la euh, pour ñu fàggu baas wala yu mel daal yooyu yëpp daanañ ko yëngu daanañ ko def daal wa laa lu mel ni ay lu mel ne ñaari rakk yi ñu julli fële ci côté Ndar daanañ def daal léeg-léeg di ci participer di wër ci foofu ci mbokk yi ñu ci buñ ci bu ñu dajalee alal après dugal ko mu dem foofu ci ñoom pour ñu dimbali kooku léeg-léeg ci matériel lay nekk wala léeg-léegi mu nekk loo xam day nekk ci xew day ànd day dugg ci xew-xew bi loolu daanañ ko def daanañ yooxu tamitam comme si kar ni ko gars yi defe bu dee kuréel yi daanañ ko jéem bu dee xuraan it daanañ jéem a jàng ba léeg-léeg donte njàng mi setul leerul tamitam waa jubun itam yooyu yëpp daanañ ko def léeg-léeg it buñ demee ba sës fa gisuñu ko jàng xat mot eh, buñ ñu ko joxee daanañ ko jàng mu ngi noonu yooyu yëpp daal daanañ ko def incha allah même daayira ba fa nekkoon it Italie daal léeg bu fekkee mbokk yi nañ soxla ko leen jàppale ci wër bi daanañ ànd ak ñoom léeg-léeg bariwul luñ ko daa def mais daanañ ko def léeg-léeg pour jàppale leen nga xam dañuy war ci kër yi chaque semaine dañuy kii chaque mois daal dañ doon joxe àllarba daal kenn ku ne cinq euro loolu moom euh, dañ ko daa def daal incha da ngay wër ci kër yi mbokk yi man na am nag ba léegi mu ngay am waaye daal comme war naax ginnaaw feggatuma ko daal waaye daanañ ko def daal chaque euh, la quinze dañuy wër ci kër yi kenn ku ci nekk euh, joxe cinq euro léegi ñu tuddee ko àllarba waaw àllarba moom xam na <laughs> àllarba jox xaram la moom ak liif moom loolu xam naa ni mbokk na ci njum tey daal barakallahu fiikum barakallahu fiika wa jasakallahu xeyran kon daal yow waxuñ ne yow yaa yoroon nangam waaye daal yow yaa ngi woon ci lépp loo xam ne bu ca ni taxawee rek mbir ma gën a baax ay waay xam jego yeng ya ci ron dox pour mu bax de war nga doxat jego yu ko yeb pour mu tass de yalla yalla jappale la ci <laughs> ko ci dugol ni ko xam ne ko ci ni tam ah nga def sey yitte ba fexé genné ko ci inshallah yalla yalla jappale yàlla ci inshallah eh bu ko defé seex bi dañuy ñew nak euh, xamna waxtu dem ndax amale nañ une heure de temps presque te une heure et demi rek lañ ci wara mëna waxtaan inshallah allah dañuy ñëw rek direct ci waw léegi yow sa sëriñ boobu moom eh, ndax bi nga nekkee Italie moom daan na ñëw foofu wala moom bokkut ci sëriñ yi ren Tambambalu ci àll bi donte àll bi moom léegi sëriñ si dañ koy daw ñoom itam ndax xam nañ ne ku pa ku lijjanti paas ba dem fa moom boo tuddoo doo am paas bu la delloo si wala gars yi duñ la jox paas bu la delloo si eh, waaw loolu daal bëggoon nañu ko xam ak itam sa sëriñ boobu moom nga demoon jébbalu ndax gannaaw boo génnee ca mbir ya moom leer na ko ne yow génn nga ca wala. ndax gisante ngeen ci diggante bi yooyu yëpp ay laaj la xam naa lii nag moom dama dama bëggoon nga tàqaleel ma ko benn par benn rek incha allah boo dégloo audio bi ñetti laaj ci nekk benn bu nekk nga tàqaleel ma ko sa sa sëriñ ba ndax moom bokk na ci sëriñ yi daan tambaambalu ci àll bi ba fekk la Italie wala déet gannaaw boo bàyyee itam ndax moom xam na ne bàyyi nga wala déet ndax ci diggante bi itam gannaaw boo bàyyee waat ngeen fi wala giseewu fi waaw salaamaaleykum si Ahmed macha allah waaw reelu na de wax nga dëgg nag de loolu nag yitte ci man fi mu ne daal loolu moom maa ngi ciy def lu ma man kay tasaare kay fexe ba daal ku ci mën a génne daal génn ci loolu moom dama kaa def moom ah, ki farata laa ko def kay waaw <laughs> loolu laa ko def waaw dina jafe loolu nag kay waaw waaye daal farata laa ko def de waaw moom daal fexe ba ñëpp wan ka ginnaaw daal waaw bi ci des mooy. sëriñ ba waaw moom daaw mosu fa ñëw nag waaw mosu fa ñëw euh, moom mosul ñëw foofu ndaxit bokk na ci man li ma daa wax man képp ku ma seet si woon it du ma wër ak kenn daal du ma ànd ak kenn di wër daal di kii daal di dajale ay ay dërëm dërëm daal loolu du ma ko defal kenn loolu dama ko daal dama ko bañoon daal gënalu ma woon euh, bi ci des mooy bi nga xam si ni génn na tamit moom man xamaa naa yëgoon na ko nag ndax euh, gisawaatuñ fi tamit ndax moom borom bi dogal na moom gaañu na moom gaañu na xam naa mën na am ñaari at ci ginnaaw daal matee ñaari at daal taxu ko taxu ko kii daal te parce que bu ma ci génnee parce que lu gën a bare man bu ma daan dem Sénégal comme li ñuy wax vacances tamit tam dama doon dàkk période seen xew-xew boobu noonu comme ni ngeen koy waxee luuma lu ci gën a bari moom laa opté woon daal di ko demee waaye euh, bi may génn ci mbiri ndànk-ndànk dama mujj daal euh, ba nga xamante ni moo kii dem ma ca demuma ci jamono bi dama bàyyi ba mu jàll ma soog waaye bi yàlla dogalee ma demaat Sénégal it dem ma bawal daal dem ma fa bawal te it bu ñu buñ musaa dem dañ doon def farata la woon maanaam ñu dem pour siyaare daal waaye defuñu ko woon daal bawal gëj na fa daal même bi ma ñibbiwaatee nii it daal eh, de yàlla dogal na dem ma bawal donte nag kóllëre ga xam naa dina sax ndax war naa fa dem ndax waaye léeg-léeg it temps moo la ko dul may ak léeg-léeg it daal par rapport bu njëkk nga xam ni ak ngëm-ngëm nga fay demee léeg-léeg ngëm-ngëm gi du ak maanaam nga dox kóllëre nii Eh, ndax kóllëre ga war nañ ko saxal daal incha allah moom gaañu na waaye tey moom it wax dëgg yàlla nekkuloon par comme ñeneen ñi daal moom ko xawoon na oyof daal te du la teg teg teg yu bari du la ko sant daal wala yenn mbir yi eh, wala yenn mbir yi daal wala bu ñëwee bu musaa ñëw kër ga même ñi nga xam ni am na ñoo xam ne bu ñuy lekk duñ bëgg ku leen gis mais moom du nangu yooyu de danaa nañ ko teg fii ku bëgg lekk ñëw lekk moom noonu lay def toog ci ëtt bi. wàcc boppam daal léeg-léeg ñi mu amal colère ci dëkk bi mooy jóg dem siyaari leen maanaam ku oyofoon la daal xam naa ko baaxoon na donte nag moom xam naa musuma jàngal daal musuma dégg mu tekkal ma kii daal man na am na xam-xam ba man na géej bañ a géej waaye daal xam naa ne ku baaxoon la daal te it ku xawoon na oyof la par rapport ak ñenn ñi ndax man na am nag la nga xam ne mbiri du leer ci moom comme ni mu ñàkk leere ci ñi nga xam ne ñooy suñuy jegeñaale ba ñu jàpp ni loolu yoon woowu dañ ci war a sax nekk ci di ko donnante Eh, mu ngi noonu léegi doomam moo fu nekk daal te doom jox naa man maa ko mag te man am ma ñoon fukki at eh, parce que moom avant muy faatoot sama baay mu ngi jébaloon ci baayam bi mu fa jógee sama baay ci moom waaye moom bi mu fa jógee kii kii a lay wax ni it sama wayjur ci moom la jébal man maa ko mag am gone bu ndaw la parce que maa ngi gis benn suur at yi ci ginnaaw sama rakka yi di istati sama wayjur mu toog ci suuf dindi kaalam dindi mbaxanaam booy bi toog ci kaw waaye ñoom dañ cey bég waaye mu nekk mbir mu metti lool sax kay nga xam ni loolu islaam dafa teral mag dal nga xam ne ab gune toog ca kaw ñu summi mag ci mu toog ak njabootam maanaam dindi kaalaam dindi mbaxanaam weextaal ak bijaaw subhanallah ba wax a giset dama ko bir biir comme way jur la it waaye du wees nga sa biir sa way dama ko ni bu ma sañoon day yu mel nga xam ni euh, doxalin mu mel nii daal ma sañoon doo ko ndax bu fekkee mënoo ñàkk tamit booy dem bay toog nga toog ci kaw waaye gërëmu moo melkaan wi daal noonu laa ko biir muy sama papa après bi bi mu dellu seet gisaan naa ay image waaye alhamdulilah changement am na waaye bariwul ndax booba gis naa bi mu toogee ci suuf it maanaam dindiwul mbaxanaam dindiwul kaalaam waa xam naa ne bu fekkee am na lu ma bàyyi ci laaj bi rek boo ci ñëwaatee après ma àdduwaat ci daal incha allah barakallahu fiikum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh bi xam naa balaa ñu déglu ojo bi comme dañuy xaw a yàkkamti tuuti ndax temps baa ngi dem léegi Cheikh bi gannaaw bu ñu duggee ci ni nga duggee ci yoon woowu léegi nag dañuy soxlanoo ci génnee léegi Cheikh Mbacke yow gars yi nee nañu da ngeen di dem ci àll bi dajeeg tubaab naar yi ñu nax leen finance leen ngeen génn ci li seen bàyyeeg seen maam yi nekkoon Cheikh yow noo génnee ci yoon yi ndax dañu laa financé wala ndax dangaa jàng ba àgg ci dëgg xam ne mooy dëgg te nangu ko wala boog yàlla dalaa baaxee borom xam-xam boo xamante ni moo la ciy gide leeralal la alquran ak sunna ngay ko déglu di ko déglu ba yàgg xam ne lii mooy dëgg nga bàyyi la nga nekkoon seex noo duggee ci sunna lan moo la convaincre ci sunna ban yoon nga jaar dugg ci sunna yoonu financement nga ci jaar comme ni ko gars yi di waxee da ngeen a dem naari tubaab euh, financé leen walla boog yow ci sa jàng bopp yaa jàng ba xam ne lii mooy dëgg nga jàpp ko walla borom xam-xam moo la leeralal lënt-lënt yi nga xam ne yaa nga ci woon salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah barakaatu sant borom baax a baax waa xam naa day la ci génne mooy njàlbeen gi mooy. Euh, benn mbokk lañ dajeel xam na ci ci moom lañ sabab bi daal xam na lu gën a bari ci sabab bi euh, moom la lu cel ci moom la jaar lu gën a baree bare lu ko jiitu sax xam na bokk na ci loo xam ne si ni def na effort ci ñun tamit am na ku ñu doon wax euh, maawul xayaat moom it jamono yi muy soog a feeñ xam nga porté woon na image bu kii bu am solo daal combat bu amoon solo la porté woon daanañ ko topp bu baax ci di ko déglu dem nañ ba seet ko sax bu ñu demoon Sénégal ay jamono euh, demoon nañ fa siyaare ka ma ànd ak sama benn sama benn waay euh, loolu xam naa ab pàcc la ci waa la tax ñu génn ci ab pàcc la ci moomu waaye bi ci des di gën a dagg jéngay tamit tam incha allah benn góor goo xam ni ñu ngi dajee Italie sama baay la sama xarit la waaye sama sëriñ la baay Ousmane loo defe naa mos na maa dégg euh, ci émission bi defe naa ay at ci ginnaaw mos ma koy dégg ñu daal doon ko fi baay Ousmane Lo sama lépp la daal. Euh, ci ñu nga xamante foofu noonu ci Italie benn juma bu ñuy wax Fornasetto après ci lañ kiwante daal ci lañ jaxasoo ci waxtaan après ci la ma baaxee ci lu bare bari ci kàddu yi xam-xam ñu di ko topp ba loola noonu ca la bi sababi daal incha ci biir xamante googu euh, tamitam doon naa topp euh, rajo xam si diine bi nekk New York foofu jariñu naa ci lu bare bari daal ci daanaka même seex yi moo joxoon seen i waxtaan sax danaka ñom nyamla fa doon ñom la fa tamitam lu bare bare di leen top di leen deglu ci lool dal ci lañ ràññee boole kak li dund ci Allah bi di ko dund ci juma yi waaye di gis tamitam ci loolu ci la suñu borom naame suñu xel dal ba suñu jeng dagga ah lool dal mo dagg suñu jeng dal inshallah waye du tim ay fere jang ko dal inshallah ko lañ jaar dal barakallah fekum waaw si Amath xam naa ba tey maa ngi am lu ma bàyyi ci laaj bi muy nga laaj ndax dañ noo financé tamitam loolu moom <laughs> xam naa ay tuuma lay doon rek yoo xam dañ koy jëme ci mbokk yi waaye maa ngi jàpp ne lu bëree bëri ci mbokk yi la tax ñuy dox Quraan ak sunna yoonu njub gi waaye la tax ñuy wan yoonu bàyyi ak moom ginnaaw jàpp ma ni ay financement la daal waaw xalaa ku li xel daal man moom sama dund gi nii kenn xamuma kenn ku ci mos a muy tubaab muy naar nag tubaab yi sax moom wax dëgg yàlla ñoom dañoo gaaw ci financé lool wax dëgg yàlla ndax dañ koy yónnee lu bare bari fañ jëkkoon ne ci ay lettre pour financement waaye fii ñu nekk dañu koy yónnee lu bare bari ay lettre yoo xam dañ lay yubloo financé xaalis waaye comme ñoom bu ñu la financé moom mënta ñàkk riba looloo taxit suñu ko jël daal incha allah nañu dimbali ko borom bi rek ci kartan gi mu ñu jox ak xel mi mu ñu pour ñu fàggu ci wërsëg yi waaye bu ñu fàggoon xool naka lañ koy yaxanale ba sottal ci suñuy mbir ci loolu daal lañu nekk waaye mos kenn mosuñoo financé daal wax dëgg yàlla waaw même bal sax mos naa fee dajeeg benn euh, naar ci jumaa ji fekk ma liggéey ba wàcc mu di ma ndax euh, bëgg ku dimbali maa ne ko maa ngi liggéey euh, après dafa ma kii sax xam naa dafa ma ko wax ci arabe mais comme peggu ma ko mu traduire que après ndax bëgg ku la dimbali maa ne ko maa ngi liggéey xam naa bi ma ko waxee yenn mbokk yi sax ñun ma yow dootoo tekki waaye alhamdulilah <laughs> ñu ngi sant borom bu baax a baax kay. waaw loolu daal xam naa moom la ci daan tontu ci côté boobu. waaw baarakallahu fiika wa jasakallahu xayran xiyaakallah dama xawoon jàpp tuuti waaw cheikh bi eh, macha allah yal na yàlla saxal la ci saxal ñi ci dafa mel ni su ma la déggee ci yoonu xam-xam nga ñëwee ci alquran ak sunna doonte du yow sa njàng moo ci àgg waaye ay borom xam-xam yoo xam ne jàng nañ alquran ak sunna te di ko jàngale. lanuy wax mu leer dëppook alquran ak sunna yow itam ci loolu nga gindee ko gannaaw boo xamante ni jot nga dajeek ay mbokk ñu e, jàppalante yow ci wàllu ay kaset ak yu mel noonu yal na yàlla fay leen ci yiw yow itam yàlla yàlla boole ñu ñun ak yow ak sunuy njaboot yëpp saxal ñu ci alquran ak sunna e, ñu ñëw ci beneen laaj incha allah. seex bi su suñu beneen laaj ci wàllu sa ñëw ci sunna gannaaw boo ñëwee ci sunna ba pare. way juróom moom ni ma déggee mu ngay wax mu nga ca mbir ya yal na yàlla guddal fanam lool te may ko wéru yaram may ko wéru xel waaye yal na yàlla euh, génnee ko ci mbir yooyu loolu dañ ko koy ñaanal ndax itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal daal yàlla génnee ko ci mbir yooyu comme li nga wax léegi moom lu metti la ndax wax dëgg sa moromam sët nga ñëw toog ci kanamam di summi sa mbaxanaak di toog ci suuf loolu lu doy waar la santal yàlla bi nga xamante ne yow mi itam donnu na loowuñ la ndax bu fekkoon ne kat tey yaa nga ca ni koon yow itam dañ lay yaa ngay bokk ca mbir ma ni koon yow itam dañ lay boole waale ca kii rek mu ngoog taalibe bàyyi yi bàyyi yi bàyyi yi bàyyi bàyyi woon yëpp ñu doonu leen ramassé dool ramassé dolli ca mu ngoog kon yal na yàlla génne ci sunu way jur yooyu ak génne ci képp ku ca nekk rek yàlla na yàlla génne ko ci ndax ñun moom suñu amoon suñu bëgg-bëgg moom yoon yooyu dañuy xëy rek moom ñu ne lépp lalle na mel ni basan bu ñu <laughs> laaloon laloon rek lal lalli eh, léegi sunu laaj nag mooy ci gannaaw boo ñëwee ci sunna mbaa jurul benn problème ci famille bi ndax mbaa jurul benn problème ci famille bi ndax léeg-léeg kat ñëwin ci sunna mun naa jur problème ci famille doonte léeg-léeg ki ñëw ci suñ na mun naa ànd ak àll boo xamante ni du ko may mu mën a maîtriser famille waaye itam léeg-léeg it famille bi mun nañoo tàggoo ñàkk sago goo xam ne ñàkk sago goo xam ne nii rek la ñuy gis rek mooy kii daal daf ñuy weddi dafa weddi suñu sëriñ dafa bàyyi li ñu nekkoon bàyyi na li bàyyam nekkoon tax loolu itam ñu jël benn eh, en dal di ko koy teg mbaa loolu dalul la rek yooyu itam. asalaamaaleykum amiin waay yal na yàlla nangu ñaan bala maa tontu beneen audio bi. yalla borom bi wala ma continuer ko rek kay yalla yalla yàlla nangu ñaani kam way juri boobu nga ko ñaanal borom bi suñu yaay nga ñaanal ñu ko mbokk ñaanal ñu ko yalla yërem ko moom yalla mom naka dem na uy ji boromam ci jitu ji ci 2020 bi ah way juri wi tam inshallah allah ni nga ko ñaanal yalla borom bi genn ko ci lolo bala mu uy ji boromam tay wax deug yalla ku digg doomu la ndax ah, ñu bare bare dañu déclarer seeni doom guerre waye mom digg doomu la dal ndax bokk na ci xamna amna am benn soxna xamna mu ngi ci groupe bi sama taw mu ngi foofu ci ñoom foofu lay jàng ci daara ji waaye lu jiitu loolu sax booba demagu ci daara ba booba maa mu ngi woon ci beneen daara ginnaaw bi laa fa jëlee waaye mos na ñëw jóge daara yi ñëw fekk uh, ci kër gi comme bi muy ñëw day indiwaale xabdu bi après waaye bi ñëwee ci kër gi gis waa kër gi di kii wàccee seen loxo nit ñi mu wàccee ay loxoom waaye waajur woowu moo ko wax génn ajaatal sa loxo yi julli ni nga doon jullee kon kooku noonu manam donte ñewul tamitam mom par rapport ak ñu bare bare ñoo xamne dañuy jakarlo seeni ñaan buñu gisé sunna di combat ak ñom muccu na ci côté bobu bi ci dess tam mom wax deug yalla alhamdullah comme li nga laaj manam pour familia bi leg leg bu re way jegeñaale surtout jegeñaale ñi nga xamne ñoo gëna a nekk jegeñaale leg leg nit ñi dinañu influence manam di yak seen xel waye alhamdulilah borom bi defal na ma dimbal ba xamuma ak ñoom benn problème wax dëgg yàlla alhamdulilah maa ngi dund ak ñoom daal ci rafetal ci rafetal bu baax a baax a baax a baax kay waaw xam na ñoom ñëpp daal ñama ca mag ak ña nga xam ne maa leen mag daal xamuma ak ñoom benn problème kay waaw ñu ngi rafetal jëme ci ñoom bu baax a baax sax kay ñoom it xam nañ nu xam nañ la ñuy dox xam nañ ne ñun duñ dox ci ay caaxaan duñ dox ci ak ñàkk fulla euh, suñu way jurit xame nañu loolu moom itam amuñu moom problème daal donte moom léeg-léeg ay nit dinañ dem di kii daal dem bay wax sax dama xam moom daf ma ragal yow yëpp waaye moom comme xam na fa ma ko teg waaye xam na ko bu baax a baax daal incha allah bal sax mu mos nañu waxtaan ci lu yàggul dara daal ci benn mbir waaye la ma seedeel mooy man xam naa ni yow nit ak sunna nga nii la waxe waxee donte moom borom bi doogalagul wan yoon yooyu ginnaaw. bi ñeneen ñi nga xam ne lu gën a bari seen yoon nekku ci wala tey ñoom. maanaam lijjantiwuñ say mbir sa sa mbiri adduna sax duñ ko méngoo léeg-léeg ñoo ñooy gën a fës ci bañ gi lu baree baree baree maanaam bañal gu méttee méttee ak maanaam yàq sa der ci mbir yi baree bari léeg-léeg ba tey gën koy taral day dem ci ñi nga xam dañ leen ay ndijaay yi lu baree bare ñii dañuy wax alku na ñii ni torox na ñii ni dakaa yërëm wala sànku na mbir yi bare bare bare yoo xamante ni yooyu yëpp day am waaye ña kay wax bu ñu demee ba gis ak ñoom it dañuy rafetal jëme si ñoom duñu ñaawal jëme ci ñoom incha allah dañuy maslaa ñoom daal waaye lu ñu maslaa maslaa tamitam moom li nga xamante si ni kenn mënu kenn waru ko maslaa kenn duñ ko maslaa kenn ba ci xew-xew yooyu ba ci xew-xew boobu ngeen di wax waxa luuma sax man dama ci doon participer jamono jamaay sax dog euh, sunna dama ko dama ci doon participer ndànk ndànk waaye euh, dama mujj tëj ko daal euh, ak sama wayjur daal ne moom duma ci kii dootuma ci def sama xaalis daal ah bu dee tabaski daal moom moo méngoo loolu waaye bu dee màggal moom noonu laa ci tënkoon ak moom waaye moom amuñu ci benn problème daal wax dëgg yàlla waaye mos mosuma ko daal ci kap sa waaye dama ko ni xew-xew boobu moom sama yoon newu ci waaye mujj na ma ko nangul daal te réerewuñ ci daal incha allah barakallah fiikum. seex bi jërëjëf jazakallahu xeyran ah macha allah sunu jur woowu di wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee ko digg doomu la waaye ñu ngi ñaana sunu wayjur wu jigéen bi nga xam ne moom itam dem na bar sàq yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko jox ko aljanatu si boole ko sunuy jur yëpp ñun ñëpp wax dëgg yàlla. ak yow bépp wayjur wu génn àdduna wala mbokk mu génn àdduna yal na yàlla boole ko yërëm te boole leen jéggal jox leen aljanatu firdawsi. Eh, Cheikh bi xam naa programme bi moom li ñu bëgg laaj lépp duñ ko mën a laaj. waaye suñu la doon laaj léegi ci wàllu dañuy dellu ginnaaw tuuti ku ne tasawuf tudd njabeer léegi yow ci côté boobu moom noo ci meloon ci wàllu gàllaaj yeeg yooyu ndax loolu moom képp kuy dund sunna moom loolu jeex na ci yow waaye nag du tax du tey it ñu laaj la sa ngëm-ngëm ci yooyu bi nga nekkee ci tasawuf ndax ku ne tasawuf ne plus njabeer euh, xam naa seex bi incha allah bu loolu passé nga tontu ci laaj boobu damay gàntanlu ñu dal di yemale fii daje bi incha allah bu fekkee am na kàddu yoo bëgg jottali ci ndaw yi nga xam ne ñu nga des ca yoon yooyo te dara bàyyiwu leen fa lu mooy bàyyi ci lii la nekk maam ci lii la nekk yan kàddu ngay dénk ndaw yooya ngay wax ndaw yooya waaye itam ci yan kàddu ngay dénk ndaw sunna yi rawatina ñi nga xam ne dañoo gis sunna jaarale ko ci whatsapp bi ak itam ñi nga xamne dañu gis sunna eh, ndaw yi nga xamne dañu gisé al dañu gisé alquran qur'an sunna ci whatsapp bi waye gannaaw buñ ko gisé taxut ñu jox seen nopp borom xam xami di déglu seen deug deug deug ba léeg-léeg xañ na di nga dégg nit wax rek nga xam ne kii de am na njuumte ba léegi nii xañ na la mu nekkoon bana ko waaye nag ba léegi dese na ko mu jéem a topp boroom xam-xam yi ndaw yooyu lan nga leen di digal waaye ci biir sunna boobu dafa am ñeneen ñoo xam ne nii léeg-léeg ñiy woote woo sunna sax dañu leen di jaawale mooy ñi ñuy wax activiste yi mooy ñi ñuy wax activiste yi nga xam ne ñoom dañoo xëy jamono yee leen ak ay nit di wax ñuy dégg ci yenn xew-xewu jamono yi ba xëy xam ne lañu nekkoon loolu ay njaam njaamu rek la ñu bàyyi loolo waaye nag yàlla dajewul de leen ak nitu sunna yi ba ñu jël seen loxo jàpp ci jàngal leen alquran sunna ba ñu xam lan mooy alquran sunna da nga leen dégg ci wax léeg-léeg ñu wax wax ju jaar yoon yoo xam ne yow ak ñoom yéen a ciy dajee ngeen bokk lu ngeen di dajji waaye bu ngeen dawee tuuti da nga xam ne bokku leen lu ngeen nekk ndax yow da ngaa gindeekoo ci buntu xam-xam moom nag dafa gindeekoo ci buntu ŋàññaate ak ci buntu révolte ñooñu bokkuñu boo tax lu mat a bàyyi xel la ci ndaw ñi nga xam ne itam gindeeku nañ ci sunna ñu bàyyi xel ñooñu xam ne mun nañoo jëflanteek ñoom ci kaw bëgg leen a leeralal alquran ak na waaye munuñ leen a jëflanteek ñoom ci kaw boole leen ci seen biir ne ñii ci alquran ak sunna lañ nekk. loolu lu mat a bàyyi xel la eh, mbokk mi xam naa ñu ngi leen di tàggu fii di bàyyi suñu seex bi insha allah mu tontu ci audio yi ñu wax ko wala mu jox ñu ay nasiya ay laaye biir incha allah bu ko defee moom itam mu ñëw indi kàddum yu mujj incha allah eh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu groupe bi ubbeeku na bu ko defee ñi am laaj yëpp comme seex bi moom mu ngi ci groupe bi ak ñun képp ko am laaj nga dugg laaj ko laaj boo ko laaj incha allah bu ci mënee tontu dina ci tontu. waaw si Ahmad ah, alhamdulilah ba tey ñu ngi santaat borom bi rek eh, borom bi ba tey côté njabar googu ni nga ko waxee rek borom bi daf ñu defal ndimbal ba tey tamit bu dee côté takkoog sangaay meeg yu yooyu tamit tam bi daal daf ñu defaloon ndimbal daal dañ ko doyloo woon ci mbir yu bëree bëree bëri donte maanaam danguñu woon dëgg-dëgg njub gi lañ ñoroon jàppe ak njub tamitam léeg-léeg doon nañ wéeru bi daal bu baax a baax sax donte yu bëree bëri moo tax bu dee côté takkaay tamitam daawuñu ci kii daal daawuñu ci géeju loolu daal di dem ci ay jabar di leen seetloo ak yooyu non non yooyu nekkoon suñu mbir daal wala sax même suñuy waajur dañ la ko xamee a bari ñenn ñi bu ñuy takk léeg-léeg ci entraînement takk bi maanaam seen i waajur ñoo leen ci entraîné di leen commencé di leen teel a jox surtout bu ñuy nekk a nekk ndaw ni di leen jox ay mbir ñu koy takk seen i yaay lu a bari te man sama waajur daaw ma jox daal yu bare bari daaw léeg-léeg ma teg comme li nga wax legui ni rek ni war nga defat ay effort pour génn wër ñu bare bare euh amona ben ndomb bo xamni kima ko joxone dama ko joxone ben dolla li ñu wax dollu xasside ndax ay xasside mom dolla mom lima ci tassare mom defena lu bare bare bare bare la kay lima ci jënd di ko joxe joxawon ka lu bare bare la kay motax dal defena defe naa bu ma bëggee jaaraat foofu fépp ñaan borom bi defal mu dimbal rek <laughs> bi ci des mooy beneen bi beneen ndomb bi it sama nijaay bi ma lay wax nii nga xam ne moo jiitoon daayira ba moo ko moo ma ko joxoon parce que moom moo fa nekk parce que man sama maam bi moom sëriñ la woon ci ni ko Sénégal ni ko niñ koy doxale rek amoon nay moo jur sama yaay parce que sama yaay ki ko jur kooku yar sama papa ba mu màgg parce que sama papa moom fekkante woon papaam jamono moom bàyyam lañ ko tudd moom lañ ko duppee comme liñ koy waxee bàyyam lañ ko tuddee léegi nag sama sama maam jooju jur sama yaay nga xamante ne sëriñ la woon moom moo moo yar sama papa maam la ci moom léegi moom mi fa nekk nii rek mu sama jox ak ba geneen goo xam ni ki ma ko joxoon dama ko joxoon benn uh, dolla li ñuy wax dollu xasida maanaam benn valin la yu daal bu mag pour ay xasida defe naa daana def lu jege uh, téeméeri xasida daana joxe yu bëree bëri après moom it ma ko joxee doll boobu noonu xolam sedd mu joxoon ma ak ak ndomba mu def dafa ni ñëw fi sax am ko benn jibar bu nekkoon këram xam naa léegi lañ koy jàpp jibar waaye boobu doo ko jàpp jibar après kooku noonu jox mu jox ma genn ndoom ba loolu daal laa mujjoon kii waaye avant may dog suuna sax mujj naa tekki ka daal mujj naa tekki ka ak ab caaj am na lu ñuy wax caaj loo xam ne dinañ am suñ côté yële nga xam ne pour bala fital lay daal ah, yooyu yooyu daal après mujj naa dama ko mujj a tekki daal mujj ma parce que daf may sonal tamitam incha allah mu ngi noonu même sama dañaay boobu ma lay wax sax daf ma léeg-léeg daf ma laa jéem a naxee pour fertik pett na la ah, daf ma fertik Fatick waaw ah, daf ma naa kii jéem a naxee eh, fi toog war nga fee toog daal pour pour dëpp ci mbiri daal <laughs> mu ngi naan waaw baax na maa ngi dégg ci benn xam naa incha allah dinaa julli timis nii rek lu ma fekkaat dinaa ci tontu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu Cheikh Ahmed waaw macha allah ah, déglu nañ kàddu yi bañ ak ci suuf dénkaan yi am solo yooyu wax. business yaa ngi wax tamitam ñun dénkaane tey itam loolu lu jaaru lay doon ndax ay jullit fu ñu daje yëkkatiku. war nañ fa bàyyi am dénkaane boo xamante si ni euh, dañuy jàpp ni mën na jariñ donte kakay joxe am xelam muccul ayib waaye amul xam-xam tamitam euh, mu ngi noonu waaye bi ci njëkk mooy ñi nga xamante si ni dañoo nekk ci yoon yi nga xamante si ni yoonu baay ak maam la la gën day maanaam euh, deltu ca ginnaaw donte dina jafe waaye mooy la gën mooy la gën daal top comme ni nga ko waxee borom xam-xam yi lañu ñu jàngale nga xam ni dafa sini, ak njub ñu jël loola ndax top koo xamante si ni daf lay dig àjjana waaye digula, la kër diggu la dara digula la kër diggu la oto diggu la soxna digula la diggu la la ay tool maanaam moom daal benn dig dong la am ci yow maanaam pour ëllëg moom moo lay dugal àjjana wala moo lay ràmmate loola nekkul ci la xam amu ci xam-xam yàlla joxe ci ndigal tamitam Euh, kon loola man jàpp naa ne ay ndax la ku xellu daal te borom bi na ma ci aw yow aw yiw loolu noonu di nga ko wan ginnaaw daal bu dul tey nga ëllëg nga xalaat maanaam daal jéem a deltu ginnaaw ci loolu ba la ci gën a garaaw nag mooy maanaam ñu taxaw ni la ak taalibe doo nga am solo léegi yow it nga ne yal naa dee ci taalibe loola mucc loolu nekkul lu mucc ayib ndax bu fekkoon taalibe rek am solo moom parewul lu tax moom nekkul taalibe comme taalibe rek am solo moom lu tax nekkul taalibe waaye parewul sax pour nekk taalibe lu tax bëggul doomam nekk taalibe kon taalibe amul solo am na lu ko ëpp solo waaw loola daal na ci nañ ca xalaat ñi nga xam ne ñoo topp yoon yooyu nga xam ne si dañ koy topp ay ñalla ah, te mu tudd ay ñalla bokk maanaam ñu koy topp ay ñalla ba tey sax ay ñalla la waaye deltu ci ginnaaw daal mooy li gën ndax ëllëg yawmal xiyaam moom la lay dig loola moom boo fa yeggee deltu ginnaaw réccu day wees ah, réccu day wees tey koy tukki war ngaa yor bagage boo xam daf lay amal kii daal daf lay amal njariñ daal daf lay noppal wa ela mu fagal la naaj wa ela moo fagal la omar waaye lu gën a bare bare bare ñu ngi koy cooboo génne foofu noonu dootoo gis kon loola deltu ci ginnaaw mooy li gën euh, bi ci des mooy ñi nga xamante ni dañoo doon jub joo pare dog sunna waaye ñooñu tey la gën ñoom maanaam ñu yërëm ñan ña nga xamante si ni ñoom lañ ñoom lañ bàyyi ca yoon yooyu lan mooy yërmande ji mooy ñu am ñeewante leen kasaalika kuntu min xablu famanna allahu aleykum fa tabayyanu defe naa xuraan noonu la ko indee waaye ñun noonu lañ meloon bu njëkk comme yàlla dimbali na la nga génn la ci loolu noonu yow ña nga ci bàyyi danga leen war a yërëm maanaam ci oo leen ci yàq lewetal maanaam oo ci xikmata euh, waaye yërëm leen daal ñeewante leen waaye bañ di leen euh, gëddee na gëdde yi ci ci gi nga leen di oo ndax fiir xaw na kat ba fa euh, borom bi yónni musaay daf ne ko ba demee nga wax ak ñoom wax ju nooy dégg nga kon daal nooyal ci seen kanam daal ci yërmande waaye ñeewante leen tamitam euh, mooy li daal incha ñu def daal la ñuy jokkalante ak ñoom muy whatsapp bi muy jëflante ak ñoom lépp mu nekk lu rafet waaye nekk loo xam ne si ki ngay kii oote dafay yërëm ki muy oo loola mooy ëpp njariñ daal ndax ki ngay oo bu fekkee ne si nii da nga kaa oo ci xëtër xëtër maanaam ak ak kii xatar maanaam di ŋaññaka baaxoo wala li nga nekk nga jaar ci digg bi bonal ka ba pare maanaam ni ko kaay du la uyu liñ koy jox du ko jël maanaam nit ki bu fekkee amoo ko ci rafetal liñ koy jox da ko day yomb mu jël ko waaye bu fekkee joxoo ko ko ci du ko jël mënu ko accepté parce que doomu aadama moo bindoo noonu moo bindoo noonu moo toll mat a bàyyi xel la incha allah bi ci des tamitam ba ci mbokki sunuy tamitam muy ni nga ko waxee ñu topp borom xam-xam yi waaye ñoom itam bañ a jël borom xam-xam yi def leen ay mbëri làmb daal kenn ku ci nekk am koo xamante ni moom nga supporté loola tamitam ñu jël leen def leen ay mbëri làmb daal loola gënul incha allah loola it nañ ko wattandiko waaye ki nga xam ne moo am xam-xam tamitam di oote moom moom it na ñee ki oo na yërëm ki muy oo waaye bu mu nekk kuy mbër mbërlu ci kanamam tamitam ndax xam-xam boobu mu am ah, du ngóora moo may waaye bu mu ci kii daal bu mu ci mbër mbërlu daal ah, loolu daal day làmbaale ñëpp daal incha allah ndax loola tamitam day yàq lu bare bare mbër mbërlu googu ndax boo gisee ñu bar bare ci waa bidaa it di leen kii ñu dem ba dina jàpp yàlla yu ndaw mooy mbër mbër lu gi rek doo nangoo eh, ki war a oyof ci kanamu ñu ñu oyofoo wala sax maanaam eh, yu bare bare daal ngi beeg yu ni mel daal yooyu yëpp daal di ko ko la mbokk yëpp rek ñi am xam-xam ak ñi amul xam-xam allah barakallah fiikum xam naa mu ngi gudd xam naa ma déglu mbokk mbokk bi ci suuf eh, yi audio yi ba xam lan la ci àdd salaamaaleykum wa rahmatullahi wa lu ci dëng tamit mbokk yi jubal rek mooy suñu jubluwaay maanaam yéwénal mooy suñu jubluwaay waaye dëngal gi dëngal gi du suñu jubluwaay waaye doomu aadama tamitam nekkul ko complète moo tax noonu la demee daal waaye waxuñu fi lenn loo xamante si ni tamitam comme nañ ko waxewoon rek taskee suñu bopp moo ko tax a jóg waaye dug mbër mbërlu tamitam waaye mu ngi noonu daal yéwénal mooy suñu jubluwaay la borom bi nangol ñu waaye saxal suñu jub gi saxal leen ci waaye musal ni ci lor yi góorgóorlu rek comme ba tey itam sunna alxuraan ak sunna moom mënoo ko dund pare muy muy nekk lu yomb faaw mu metti daal faw mu metti comme commencement xan ka boo ni ko borom waxee moom faaw mu gësam xam ñun ñooy ñan loolu nag moom képp koo xam da nga bëgg dund njub gi tamitam faaw nga bàyyi xel yooyu xam ne dina metti daal ay pakka mu sa kanam ndax société bi nga nekk lu la wër li la wër lépp lu gën a bare bare seen maanaam paraparel na dañ la fàkkal foo xam ne ñoom foofu lañ bëgg nga daanu leen kàmb ba lu gën a bari dañ naa torox na wala ñu tëkkiwul dara ñi wala ñuy gàttal ci way te yooyu yëpp it wala ñuy sëqal sikkin te yooyu yëpp it moom ab jullit dafa dafa ñaaw mu di ka ŋàññe kon nañ gën a góorgóorlu rek incha allah ci lewetal waaye ci gën euh, euh, jaxasoo suñu biir tamitam ci waxtaan ak yëpp daal incha allah ndax loola ay njariñ lay jur ay njariñ lay jur incha allah barakallahu fiikum salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa Sakkoo xam sa diine ñu ngi leen di yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaanal yàlla defal leen ñu te defal ñu ko di rafetlu waxtaan fi jaar abu ibrahim ak uh, abu asiya am na solo lool ah, ah, am nañ cay giddeeku yu yu am solo waaw ah, te rafetlu nañ ko waaw waxtaan wi aw na yoon te macha allah daal yal na yàlla gën a dëgëral te gën ñoo fil ci yoon wi eh, alquran ak sunna waaw ah, di di ko rafetlu lool lool di ko rafetlu macha allah rafetlu nañ ko lool waaw ndax am na ay ay leeral yu ci ci génn yu am solo waaw ah, amoon nag benn laaj bu ma bëggoon laaj incha allah alo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw ah, cheikh bi abou ibrahim ñu lay nuyu baax di ziar waaw dama doon laaj comme ba ba nga fa ci daayira yeeg yooyu waaw ba nga demee ne ba xamante ni yàlla baaxal na la ba ba ba gis ba nga gis sunna ba nga bàyyee mbokk ya nga nekkaloon foofu euh, nun la nun doon nun demee woon a yow waaw nun demee woon ak yow nga bàyyee euh, àllarba ya nga daan laaj ak ak daayira ya nga daan dem ak kuréel ya nga daan dem ak yooyu seen yooyu daal waaw ñoom nun defee ak yow nan lan defee woon a yow ndax euh, ñoo ngi sàmm kóllëre ga ba tey wala dan laa beddi waaw waaw laaj boobu laa la doon laaj waaw kay jërëjëf jazakallahu xayran waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Aba Mouhamed ñu ngi lay siyaar baax a baax kay di siyaar suñu mbokk boobu tamitam euh, Mor Kane defe naa Mor Kane la euh, alhamdulilah wax laa kulli xaal comme ni nga ko waxee daanaka mbokk yooyu defe naa amatuma ci bu dul fa ñama fa am comme famille daal wala ñu néew daal mais bu dee mbokk yooyu ma bokkaloon liggéey boobu noonu moom defe naa dégganteetuma ca kenn daal maanaam comme yeneen mbokk yi nekk Sénégal ñu bare bare niñ lay dàggee ñoom noonu lay demee sa digganteeg ñoom moo tax euh, bi ci des mooy bi ma fay nekk tamitam ba bay ci biir li ma fay nekk yëpp doon naa kii léegi rek doon naa am jafe-jafe ñoom daal ci buñ musaa di daayira yi ndax léeg-léeg bu ñuy jàng noonu wa ilaa ñu jàng jàng durus xasida yi bu julli jatee léeg-léeg lu gën a bari buñ bëggee faat waxtu bi léeg-léeg euh, julli ko ci yeexantal man lu bare bare damay kii daal damay damay opposé wu daal damay bañ ba léeg-léeg di am na benn bokk boo xam ne léeg-léeg sax day tegante dënn day am jamono jooju boobu it maa ngi kii daal xeeñtu mbir yi ndànk-ndànk mais bàyyi ma ko woon complet mais booba tamitam mbir yaa ngi kii daal maa changement mu ngi am ba am na ci loo xam ne doon la ñuy wax am na ci mbokk bu baax koo xam dafa baax lool sa bëgg lu baax daf benn suur def ni ma man nag ma baal àqare man ak diw de tey moom dañoo ci yow lañ doon wax ñu ne léegi moom su yéen suñu suñu mbokk yi rek ngay déglu booba itam ñu ngi ci jubloon ahlu sunna yi booba ñoom rek laay déglu loolu tam itam doon na gaar daal ba même avant ma fay may génn complète tamitam léeg-léegaa tamitam ma dem ba ma yàgg man leen dootuma comme jàppante yooyu di am ci léeg-léeg ñu bëgg a yeexe waxtu ma bañ ka léeg-léeg daana ma jural man leen léegi dootuma ñëw daayira sama kër laay toog après di jàng sama alxuraan di jàng samay xasida leg leg après mo mujjé ñu waxtaan amaat après mo mujjé demaat rek continuer and ak ñom inshallah ci loolu daal lañ nekk bu wax mais dafa naa daal mbokk yooyu amatuma ci kenn daal ay contact loolu daal demaat naa fi étalé ci 2000 mille kii bi seeti sama grand bu ne foofu sama ñaari grand ñu ngi foofu ci 2021 bi léegi am na si ñoo xam ne daje nañ ci jumaa ji après benn mbokk mu ngoy wax gars ñu ngi lay laaj xanaa di nga ñëw daayira ma ne ko wan naa yooyu wan naa yooyu ginnaaw mbir yooyu Euh, man wan naa ko ginnaaw mais bu du loolu daal daanaka amatuma ak ñoom contact daal même fi ma ñëwee fii it continué na ba tey itam bi may ñëw côté bi itam booba doon naa dem daayira waaye la ma doon gis foofu ci maanaam léeg-léeg bëgg weex weex yéex a julli bi julli bi loola tamitam ma jural ma mujj gàddaay fii tamitam sax kay bàyyi leen complètement ca laa continué nag bàyyi mbirum daayira eh, mujj raxasu ci mbiri ndànk-ndànk ba set ci wécc ba lu ca laal daal léegi daal lépp lu ci laal daal moom waxuma ci dara daal lépp luy tax mu deltu ginnaaw daal man loola daal ku ma ci oo maa nga jote ci loolu tamitam jaral na ma xëy jaral na ma gont daal incha allah noonu daal la tëdd lu ci manqué boo ñu fàttalee rek ñu complété waat ko incha allahu barakallah fiikum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Abou Mouhamed ñu ngi lay siyaar baax a baax kay suñu mbokk boobu tamitam euh, Mor Kane defe naa Mor Kane la euh, alhamdulilah wax laa kulli xaal comme ni nga ko waxee daanaka mbokk yooyu defe naa amatuma ci bu dul fa ña ma fa am comme famille daal wala ñu néew daal mais bu dee mbokk yooyu ma bokkaloon liggéey boobu noonu moom defe naa dégganteetu ma ci kenn daal maanaam comme yeneen mbokk yi nekk Sénégal ñu bare bari niñ lay dàggee ñoom noonu lay demee sa diggante ak ñoom moo tax euh, bi ci des mooy bi ma fay nekk tamitam ba bay ci biir li ma fa nekk yëpp doon naa kii léegi rek doon na am jafe-jafe ñoom daal ci mu mosaa di daayira nii ndax léeg-léeg bu ñuy jàng noonu wa ilaa ñu jàng jàng durus xasida yi bu julli jatee léeg-léeg lu gën a bari buñ bëggee faat waxtu bi léeg-léeg eh, julli ko ci yeexantal man lu baree bari damay kii daal damay damay opposé wu daal damay bañ ba léeg-léeg di am na benn bokk boo xam ne léeg-léeg sax day tegante dënn day am jamono jooju booba it maa ngi kii daal xeeñtu mbir yi ndànk-ndànk mais bàyyi ma ko woon complet mais booba tamit tam mbir yaa ngi kii daal maa changement mu ngi am ba am na ci loo xam ne doon lañu wax am na ci mbokk bu baax koo xam dafa baax lool sa bëgg lu baax daf benn suur def ni ma man ak ma baal àqare man ak diw de tey moom dañoo ci yow lañ doon wax ñu ni léegi moom su yeneen suñu suñu mbokk rek ngay déglu booba itam ñu ngi ci jubloon ahlu sunna yi booba ñoom rek laay déglu loolu tamitam doon na gaar daal ba même am xama fay may génn complète tamitam léeg-léegaa tamitam ma dem ba ma yàgg man leen dootuma comme jappante yooyu di am ci léeg-léeg ñu bëgg ko waxtu ma bañ ka léeg-léeg daana ma jural man leen léegi dootuma ñëw daayira sama kër lay toog après di jàng sama alxuraan di jàng sama xasida léeg-léeg après ma mujj ñu waxtaan amaat après ma mujj demaat rek continuer ànd ak ñoom incha allah ci loolu daal lañ nekk bu wax mais dafa naa daal mbokk yooyu amatuma ci kenn dal ay contact loolu daal demaat naa fi Italie ci 2000 kii bi seeti sama grand bu ne foofu sama ñaari grand ñu ngi foofu ci deux mille vingt et un bi léegi am na si ñoo xam ne daje nañ ci jumaa ji après benn mbokk mu ngi wax gars yi ñu ngi lay laaj xanaa daal di nga ñëw daayira ma ne ko wan naa yooyu wan naa yooyu ginnaaw mbir yooyu euh, man wan naa ko ginnaaw bu du loolu daal daanaka amatuma ci ñoom contact daal même fi ma ñëwee fii it continué ba tey itam bi may ñëw côté bi itam booba itam doon naa dem daayira waaye la ma doon gis foofu ci maanaam léeg-léeg bëgg a weex ju weex yéex a julli bi julli bi loola tamitam mooma jural ma mujj gàddaay fii tamitam sax kay bàyyi leen complètement ca daal continuer nag bàyyi mbirum daayira mujj raxasu ci mbiri ndànk-ndànk ba set ci wécc daal ba lu ca laal daal léegi daal lépp lu ci laal daal moom waxuma ci dara daal lépp luy tax mu deltu ginnaaw daal man loola daal commencé on maa nga jota ci loolu tamitam jaral na ma xëy jaral na ma gont daal incha allah noonu daal la tëddee lu ci manqué boo ñu fàttalee rek ñu complété waat ko incha allahu barakallah fiikum xam na Cheikh Abou Mouhamed kii bi nag euh, question bi li gënoon a bari li taxoon tax euh, léeg-léeg jàppante gi di am ci bëgg faat waxtu dafa am loo xam ne am xel daf ko nanguwul daal wala man sama xel mënu ko nangu daal ndax yow bu fekkee ñoom seen waa ji euh, wala ba nga cay nekk ñoom ñun ñu jàpp kii moom dafa julli ci géej donte loolu tamitam dem nañ ba xam ne moom gisuñu nee gisuñu fu mu ko bindate moom daal ay lépp leen di gën a nuru daal lépp ak léppoon waaye am xel daf ko fekkul nanguwu ko tamitam ñoom ñun dafa julli ci géej jamono jooju te gëm ko comme ñun niñ ko gëme ba léegi ñoom ñu gëm ko maanaam lan moo tax mu julli ci géej maanaam moom dafa bañ a faat waxtu ndax fonk boromam waa léegi yow nga ni moom ngay liggéeyal moom ngay ooteel ba pare maanaam julli caan nga bëgg a ci say mbir di yooxu wala ay laa nga ni da am leneen looy def pour maanaam bañ a faat waxtu loolu noonu dëgg yàlla man sama conscience may ma woon daal maay continuer ci rythme boobu tamitam doon na sabab léeg-léeg may jàppante ñoom ci fànn googu Yeah.